day bëgg wax nag sëy bu yàqu yu aju ci nañu koy tase ñetti xaaj la xaaj bu jëkk bi mooy sëy bu yàqu boo xam ne su fekkee ne wéet amagut moom dañ koy tas gannaaw bu wéetee te yàggut it daañu ko tas waaye nag bu wéet amee tam yàgg boole ca dee su ko tas kooku ñetti masala la benn bi mooy jirim boobee nga weesu woon ñu joxe woon ci sart ba la ñu ko mayee suñ ko mayee te sart yi amu ca bu wéet amut daañu ko tas bu wéet amee te yàggut it noonu bu wéet amee te yàgg nag ñu bàyyi ko noonu ak jigéen ju am dara ji joo xam ne am na kilifa gu koy yelloo maye suñ te forcé sax waaye am na kilifa mu bàyyi ko fa ne dem ci mbokkum système rek mu maye ko mooy itam wees woon nga ko ak masal mi nga jàng léegi muy sëyut secret boobu su fekkee ne yëg nañ ko te wéet amut daañu ko tas su wéet amee te yëgut it daañu ko tas bu yàggee nag moom te waxoon nañ yàgg na muy demee di su ko tas xaaj ñaaral bi mooy sëy boo xam ne su wéet amagut daañu ko tas waaye nag bu wéet amee moom kenn du ko tas moo xam yàgg na moo xam yàggut ñetteel bi mooy rek sëy boo xam ne yoon nee na ñetteel bi mooy rek sëy boo xam ne yoon nee na baaxut te faaw da koy tas ak lu mën di am moom du ko bàyyi mukk mu wéy xaaj bi nga jëkk wax moom wax nañ ko ba noppi bu yett yi nga dégg ma tudd ko léegi lim tàmbalee nag ci wax ab loxo mooy xaaj bi nga xamee ne su fekkee ni wéet amagut daañu ko tas waaye gannaaw bu amee moom kenn du ko tas moo xam yàgg na moo xam yàggut moom nag soo ko bëggee takkar ngay wax ne muy sëy boo xam daal dañ caa sart sart boo xam ne dafa safaanoonteeg la sëy laaj saa yoo xam ne dugal nañ ca sart boo xam ne dafa safaanoonteeg la sëy laaj ma nga noona tax na ci ay misaal misaal mu njëkk mi mooy ñu sart ne lu yàgg-yàgg kenn ci ñoom ñaar mu jëkkër ji mbaa jabar ji guddi képp lay dem ca moroom ma mbaa bëccëg képp lay dem ca moroom ma waaye du mën a boole guddi ak bëccëg lu sëy laaj mooy ñaar ñuy sëy kenn ku ci ne sañ ngaa dem ci ka ngay sëy muy guddi muy bëccëg muy waxtu wala soob waaye dees ko takk ci guddi rek ngay sañ a dem ci moom mbaa bëccëg rek ngay sañ a dem ca moom waaye bu njëkk sart rek guddi kese mbaa bëccëg kese daal lu niru li ñuy wax nikaaxul mu taxati sëy bi yóbbul muy sëy bi ñu wutal àpp loolaa koy yàq day wax ne nag buñ sartantee sart bu mel nii day mel dana jeexital ca can ga ci can ga toll nu wërta toll mbaa mu yées nu war a na toll moo tax kon bii moom bu wéet ko si am dañuy wax góor gi mu joxe sadaqul misli waaye duñ seet kenn gañu tuddoon misaalu ñaareel ba mooy ñu mayee seen diggante ci kaw xiyaar xiyaar mooy daal ñu toogaat lu toll ne ab fan benn bis mbaa lu ko ëpp ñoom ñaar kum ci neex nga génn ci sëy ba wala kenn ci ñoom ñaar bu ko neexee génn ci sëy ba mbaa keneen nit ki seeni waajur mbaa seen xarit ñu sart ne li fekk benn fan mbaa ñaar bu ko wéyelee mu wéy bu ko wéyelul du wéy bu xasee sart noonu rek booba sëy buñ ko teelee yëg te wéet amut dañ koy dindi bu fekkee ne nag wéet xas na am nag ñu joxe can nga ñu waxante woon su fekkee waxuñu woon genn kon ñu joxe sadaqul misli canu kenn xiyaar boobu nag mat bi sub lëm mbaa ko mooy yàq waaye bu ñu ne woon rek jotaay bañ toog di ca mayee ku mu neex ci ñoom ñaar bu la neexee ne bàyyi naa wala kenn ci ñoom ñaar bu ko neexee ne bàyyi na mbaa ñu sart ne suñuy waajur mbaa suñu xarit di rew ñuy jóg ci jotaay bi kum ci neex mu ne sëy bi dañ na mu dañ loolu moom nangu nañ ko bokk na ci loolu ñu sart ne ki ñu may soxna balaa dele sàngam nga indi can gi buñ àgg ci dele ba te indiwul can gi rek amatu fi soxna ba noppi nag mu góorgóorlu ba indi ko laata ñuy àgg ca dat boobee mbaa bokk fexe na ba indi ko ci dënn dat ba su boobaa lay bokk ci sëy yi nga xam ne buñ ko teelee yëkk te wéet amut ñu dindi ko tas ko bu fekkee wéet am na ñu bàyyi sëy ba wéy ne bu fekkoon ne moom dañoo sartante nii dat ba jàll nag te kooku indiwut can nga moom dañ koy tas faw faw faw moo xam njëkk wéet la moo xam gannaaw wéet la lu yàq nag googu maye mooy soo ko dee seet nikaaxu xiyaar la sëyu xiyaar la ndax xam nga jëkkër ji mooy seet rek bu ko neexee mel na ne farlu ci indi can gi balaa dat boobee mbaa ci dat boobee bu ko neexut it bu ci bëgg génn mu bàyyi ba dat booba jàll mu daal di bañ a indi can nga te bu boobaa faaw sëy ba day deñ kon boo ko dee seet ci dëgg-dëgg nikaaxu xiyaar rek la li ca mujj nag mooy ba wàjj si sixaar yi jooñee mu daaneele xam nga sixaar daa am sarixu sixaar am wajhu shixaar am murakabu shixaar fii nag moom wajhu shixaar nga fi dugal maanaam mooy kee day may soxna kee kee itam may ko soxna waaye ci sartub kenn ku ne moom da nga joxe ak can nga xam ne foofu moom lay tee sëy baa baax rek mooy sart bi dañ sart ne du ko kii mayu soxna moom du ko may soxna ne moom kenn ku ci nekk da nga joxe ak can wala muy wajhu shixaar moom itam buñ ko yëgee te wéet amagut dañ koy tas bu fekkee ne wéet am na nag ñu bàyyi mu wéy dañ joxe sadaqul misli can kenn bépp sëy boo xam ne can nga ci boppam moo matalewut sarti can mi ngi bokk ci sëy yi nga xam ne buñ ko teelee yëpp te wéet amagut ñu tas ko bu fekkee ne nag wéet nañ ba noppi ñu bàyyi sëy ba yooyu dañ joxe canu kem mel ne buñ joxe woon lu araam def ko can mel ne sàngara mbaa mbaam xuux wala loo xam ne yoon nanguwul ne am na njariñ mel ne xeeti fowukaay rek bu yoon jàpp ne amul njariñ wala ñu tudd can goo xam nañ ko umpale xamuñu fu mu tàmbale xamuñu fu mu yem loolu lépp can nga mëtalewut sart ya ndax can moom daañu ko andil leeralug boppam dana ko wax ci kanam ba tey sëy ba buñ ca sartee sart boo xam ne day sasaanoon teg maqsoodan nikaax yi lañu daan jublu ci sëy xam ne da ca daa am ñu ko cay jublu di ko ca bëgg ñu sar sart boo xam ne day sasaanoog moom loolu bu amee te nga xam ne wéet amagut dañ koy tas su fekkee nag wéet am na ba noppi ñu bàyyi sëy ba jàll ñu wàcc nag sart boobee ba noppi tam doxe canu kem muy sadaqul misli moom la ñuy joxe te bàyyi sëy ba yooyu ba noppi nag wàcc sart boobee day misaal ba ñu sartee sart boo xam ne day safaanoonteeg la ñu daa jublu ci sëy ba sëy masaam te kooku yorul benn soxna ñaar mbaa ñett la dañ daa séddale nekk ga ñuy nekk soxna yi nekk kee guddeeg bëccëg jàll ci kee nekk moom guddeeg bëccëg nga xam ne moom jëkkër ji ku ay rek mu nekk fa yow ba sax ay jàll bu jëkkër ji sartalee ka muy takk ne ko nag du ma la jox ak ay loolu kon sarta ngoog bu safaanoon teeg maqsoodan nikaax ba tey gu nee ko danaa la joxuk ay waaye nag du ma la yemale ka fa nekk damay jox kooka ñaari fan door laa jox benn fan boobu sart it ci yooyu la bokk buñ ko teelee yëg te wéet amagut dañ koy dindi bu wéet amee nag loo ci sart boobu ba noppi ne ko joxeel canu kem wala jigéen ji ci boppam moom mi ñuy maye moo sartul jëkkër ji ne ko yow dañu laa yilif dañu sartante ne ci la yilif moom moo may jox soob dund waaye yow du yaa ma koy jox day mel ni jigéen ji foofu daa bëgg lu wóor ndax ndegam moom ci këram ji ku yilif la bu sarte ne ko te la yilif mooy féetiwoo di ma jox dund day mel ne daa bëgg lu wóor tax mu wax ko waaye yoon du ko nangu sart la bu yoon di bañ ndax dañuy jàpp ne jëmm jëkkër ji ci boppam rek moo war a warlu ab dundam moom soxna si ba tey bu góor di takk jigéen ne ko nangu naa laa takk waaye nag dañuy sartante ne yaay dundal sa bopp mooy aw xaleha jëm wax ba tey sart boobu xam nga ne munaqib la aji safaanonte laaj maqsoodan nikaax ndax jëkkër ji ci boppam moo war a dundal soxna sa doonte sax soxna saa ko ëpp alal tam ti ci dara kon nag bu sartee ne ko damay takk waaye yaay dundal sa bopp man duma lu dundal sart boobu buñ ko yëgee ni ci lañ fas sëy ba te wéet amagut dañuy tas sëy ba bu fekkee nag xas nañu wéet ba noppi ñu dindi sart boobu ba noppi bàyyi sëy ba yooyu tam joxe canu kem daa bëgg a dugg ci xaaj ñetteel bi nga xam ne faawu sëy ba dañ koy dindi tas ko moo xam wéet am na moo xam wéet amut mu ne moom nag mooy lépp lu yàq sëy ba ci bokkut ak ñaari xaaj ya nga weesu fii xëyri ma marra loolu nag mooy mel ne sarti kilifa ga sarte yi nga waxoon ci ne kilifa war na ko amee dafa xët mbaa sarte yi nga waxoon ci jëkkër ja mbaa jabar ja sart yëpp xët mbaa yenn yi xët mbaa la nga tudde woon arkaanu nikaax ponki sëy am ci lu xët mel ne jigéen ji jekki-jekki maaye boppam nga xam ne kilifa mooyu ko te da nga ne woon kilifa ab sart la ca xaaj bi moom dafa diis lool faaw rek dañuy tas sëy ba moo xam wéet am na moo xam wéet amut te kat dañ ciy boole ñaata wax wax yi nga xam ne moo wane ne kii ñaan na soxna kee may na ko soxna loolu daan nu faral di ko wax ak a waxaat loolu naa bu ñuy fàtte mukk ne bu ñu dee maye li ñu tudde asiixatu ak tëgg ci téere yi arab yi te wala fee ko wax ak tëgg rek waaye mooy wax yi nga xam ne daal mooy wane ne kii ñaan na soxna ki ko war a may may na ko moom mi doon ñaan tam nangu na loolu dong moo mënta ñàkk ci foofee ñu daje di fa maye soxna sax guragaag tàngal jaag xutba yaag yëpp rek mën naa ñàkk waxoon nañ sax ne ay seere mën naa bañ am ca ba ñuy maye ca gannaaw ba nag ñu fexe ba wut ay seere balaa wéet a am waaye waxin woowu moom dañ ko fonk lool xam ne mënta ñàkk kii ñaan soxna wax ne maa ngi ñaan soxna ka koy may wax ko ne ko may naa la moom itam mu wax ne nangu naa li ma may loolu sart la bu mënta ñàkk bu fekkoon ne nag defuñu ko dañu daal di boole sëy boobee ci sëy yi nga xam ne faaw ñu tas ko moo xam wéet am na moo xam wéet amut loolu nag kon mat naa xam bu baax a baax mu misaale ko sëy bu ñu jëmale àpp sëy yoon nangu wut ku ko wutal àpp dañu fas rek bàyyi yàlla bu faatu amee tàggoo am bi ne bu fase war a am ba tey ñu tàggoo waaye nag bu ñu xosee sàkkal àpp rek àpp ba soreeg mu jegee ci yam boobu sëy bu ko yoon yëgee da koy daal di tas faaw faaw moo xam nag wéet am na moo xam wéet amut sëy bi jëmal dalee nag moom ñëpp a maase ci ne baaxut ñu néewoon yow ñoo nangu baax ga te gis luñ faale moo tax bu fekkee bañ koy tas fekk na ñu wéet ñoom ñaar daañ jox jigéen ja can gañ waxante woon am na ñu ne itam nag canu kem lañ koy jox waaye sëy boo jàpp rek can gañ waxante woon sëy buñ jëmal dara noonu faaw ñu yar góor gaal jigéen ja bu ñaar ñu sëyoon sëy boobee waaye duñ àgg ci gëttal leen ñu leen di yar rek bàyyi leen te bu doon tasi sëy ba itam di ca tuddaale fase ndax bu ñu dogal ci ak yàqoom dañ ci dugaale fase mooy suñ demaatoon ba góor ga takkaat ko takk bu baax it du tax njàpp ne tas dañ ko tasoon am pasale di ko wàññiwaale day mel ni rek mësu koo takk ba tey nee nañu lay yàq sëy bi jëm dele mooy ñu wax jigéen ja ne ko sul sëy bii kat dele sàngam lay jëm mbaa ñu wax ko kilifaam nga koy maye te bu fekkoon ne jëkkal yi ñu may ci boppam rek moo am yéene yi kii daal dama koy takk waaye su ma àggee dele sàngam ci laa koy fase sëy bu fa lay yem mel ne ñu yóbbu ko ci barab ñu fay liggéey ñu sàkkal ko dele boo xam ne ca la fay war a bàyyi koo ab liggéeyam jeex mu jàpp ne mënut ñàkk soxna diggante boobu mu dogu ci takk nag dama fas ci biir mooy bis bu deleem jeexee fii ba muy dem boobu lay bàyyi soxna si loolu du ci wàññi dara loolu kon ak jàpp ndal la mu ne sax bu fekkoon jigéen ji jàpp na ne kii koy takk kat bu àggee dele sàngam dana ko bàyyi itam waaye góor ga kii ñu may soxna xappatiwut loola wax ko ko moom jigéen ñi baa kilifaam rek du ca wàññi dara dañoo aayo woon góor gu tawat tawati faatu di takk soxna mbaa jigéen ju tawat tawati faatu di wut jëkkër te kon loolu dugg na ci lii may wax ne dañ ko war a tas faaw moo xam wéet am na moo xam wéet amut mu ne waaye moom nag bu fekkee ne ka tawatoon wér na te def ñu ko woon a dindi kon dañuy bàyyi sëy ba wéy ndegam ka tawatoon daal xas na wér moom sëy ba deesu ko tas dañ koy bàyyi mu wéy dégg nga bataay ñuy wax tasuk sëy ba mu ne nag tas googu léeg-léeg ñu ne fas xun bi talaaq léeg-léeg ñu ne fas xun bi xëyri talaaq ba bilaa talaaq sëy boo dégg ñu ne ci yoonu Malik baaxut ba des koy dindi am na ak teqale bu ñu nee baaxut ba dañ koy dindi mën naa muy boo xam ne ñëpp maase ci ne baaxut nga xam ne boo génnee sax ci biir ngir mi dem ci beneen ngir itam du tey ñu dëppoo ci ne moom sëy boobu baaxut mën naa am nag muy boo xam ne ñee dañu ne baaxut ñee ne baax na waa Malik nag ñoom jàpp ne baaxut wóote gañ ca wóote day tax waa Malik yi bàyyiwaale xel ñu wax ne baax na loolaay tax nag bu yoon dee tas sëy boobu da ciy tuddaale tase nga xam ne góor ga takkoon te yoon ne ko tas na sëyam boobu day mel ne rek pase na soxnaam benn pase bu ko doon takkaat ñaari pase moo ko cee desee ndegam góor moom am na ci ab lim ñetti fase ci soxnaam ñu door ko ne faaw jëkkër jaar fi bu dee sëy bu ñu wute nii yoon ci bopp wax ne baaxut ba da koy tas tas ko itam du tee mu tudd ca menn pase nga xam ne bu góor ga takkaatee ñu jàpp ne yaari fase moo ko desee kookee mu takkaat bu ko fasewaatee ñaari yoon rek faaw jëkkër dafay jaaraat mu door koo mën a takkaat su ko misaale nag li ñuy wax sëyub sixaar daañu ko wax ca kanam ab jaam dex boppum kilifa daal di maye jabar wala jigéen maye jabar te yëpp aaye woon nga ko sëy yu mel ni bu ko yoon maal di tas jàpp ne moom baaxut du tee mu seetaale ne am na ñu wax baax ga ba tax na kon nag tas gi nga koy tas wàññi na ko muy menn pase donte sax wuute goowu daa génn biir ngirum Malik nga xam ne waa ngir mi yëpp marché nañ ci yàqu ga waaye boo génnee nag ci yeneen ngir yi ñoom ñu wax baax ga itam du tee waa Malik moom sàmmaale waxi ñu wax baax ga ba buy tas sëy boobu itam wañuwaale ca menn pase kon sëy boo jàpp ne loolu fa qaa'idatun kulliya lañ koy tuddee maa takk-takk boo xam daa matale amul fu muy jàdd te mooy nga wax ne kullu maxtulifa fiihi fa fasquhu bi talaaq bépp sëy boo xam ne wuute googu am na ci rek waa Malik ñoom bu ñu waxee ak ñàkk baaxam ba di ko tasit te rek ñu tudd ca fase mu ne nag sëy bi nga xam nañ caa wuute ñenn ci borom xam-xam yi ne wér na ñenn ñu ne wérut la sëy bu wér daan araamal ba tey moom lay araamal moom nii dañuy wax ci sëy bu wér ne buñ la xasee may jigéen rek araam na nga wëlbatiku di bëgg a takk yaayu jigéen ja mbaa maam mu jigéenam ba ca aadama yow ñu xas may jigéen jooju itam sa doom mbaa sa sët daal nay jeexlu ca kookee ñu la fasal képp doon sax fas kese la nga xam ne jutiwalaak moom dara it tutee rek daal di araam ci sa doom araam ci sët loolu nga xam ne nag moom la sëy bu wér bi di araamale ba tey ba tey sëy bi nga xam ca lañ wóote ñooy wax wér ga ñooy wax ñàkk gaa wér noonu lay araamale ku ñu fasal xeeti fas yi nga xam ne yoon nee na baaxut waaye dañ ca waaye dañ caa wóote nag am ñu ne itam baax na buñ toppee ñu wax ne baaxut itam tutee rek mu araamal la nga xam ne moom la sëy ba wér dëgg dëgg daan araamal nga xam ne moom moomee takk jigéen joojee ñu fasal ko ko noonee araam na ci moom muy takk yaay jigéen joojee mbaa maam mu jigéenam ba ca aadama te tey moom it doomam mbaa sëtam du mën a ñëw takk jigéen jooje nga dolli ca ne itam sëy boobu nga xam ne dañ caa wuute ñeene wér na ñeene wérut bu fekkee ne laata ñu koy tas da ca am ku faatu kon ka fa des day daal di doon boo bokkee ci ñu wax ne dañ koy tas waaye laata ñu koy tas nag far kenn ka faatu bu jëkk jabar ja kenn ca faatu ka fa des day doon ka faatu kon sëy boobu day am ak donante ndegam laata ñu koy tas am na ca ku faatu waaye nag li mu ne daañu donante bu fekkee ne jot ñu ko tas ba kenn ka faatu ci la génne sëyub aji tawat dañ ne woon ku tawat tawati faatu bu bëggee sëy kenn dañu jàppale da ko yéene ab dono rek moo tax mu bëgg a sëy moom moo xam góor gaa moo xam jigéen jaa kon nag ndegam bañ a dugal aji doonu jiyees moo tax ñuy aay sëyub aji tawat kon duñ ko tasut moom sëy boobu ba am ca ku faatu itam du tax ka fa des di ko donn loolu lu mat a takk la doroon wax ba léegi sëy bu ñu wuute ñeene wér na ñeene wérut mu ne nag sëy boo xam ne moom boroom xam-xam yépp dañoo maase ci ne wérut baaxut dafa yàqu moom bu ko yoon tase itam du ca tuddaale tase ndax day jàpp ne sax fasuwutoon léegi ñëpp maase na ci ne moom baaxul rek dañuy jàpp ne kon moog lu fasuwuta yam bu du ko yoon tase itam tax ñu tudd ca tase dañ ko tuddee fasxun bila talaaq wala fasxun bi xëyri talaaq moo xam nag jëkkër ja jot naa wéet ak jigéen ja moo xam jotuñoo wéet tey du aajowoo àttika bi di wax naa sëy boobu tas naa ko bu fekkee ne jëkkër ja nangu naa daal jekki-jekki bàyyi rek kon bu àttekat bi waxul ne tas naa sëy boobu itam ku ñu takk jigéen joojee dara nekku ca sëy boobu ñu wute nag ñeene wér na ñeene wérut góor ga ñu may ci sëy boobu bu fekkee nangu naa jekki-jekki bàyyi topp tas ga kon ku takk jigéen ja ca gannaaw loola baax na waaye nag bu fekkee jëkkër ji nanguwutoon a bàyyi te àttekat ba jotugut a àtte ne tas na sëy boobu bu ko takk itam day mel ni ngaa takk soxna si jàmbur ba tey nga dolli ci ne sëy bu ñëpp maasa ji ne moom baaxut yàqu na bu kenn ka faatu woon ci ñoom ñu ko siq njëkk yoon di ko tas itam du tax doonante am te benn wees la nga ne woon moom laat ñu koy tas ku ca faatu ka ca des doon ko waaye fii moom jàppal ne lu yàgg-yàgg ak doonante du ci am da ko misaali ab juróomeel koo xam daa takk soxna si juróomeel te wóor ko ne ab juróomeel la maasa nañ ci ne sëy ba baaxut moo ko ñu fas wuute yam sëy bi ñëpp maasa ci ne baaxut moom ni ki ab juróomeel jëmmi maye ga kese du araamal dara ku takkoon ab juróomeel waaye takk ga ca layam du tax yaay jigéen jooju araam ko du tax maa ngi jigéen ji araam ko ba ci aadama ba tey moom it doomam mbaa ab setu mën naa ñëw takk jigéen joojee ndegam may kese ci amoon bu fekkee nag xës na bànneexu ci kookee ñu ko may donte agul sax ci joteeg sawukaay waaye jot nañoo wéet ba mu bànneexu ci moom ci laalante ci yaram ak mbaa lu ko nuru nag foofu lay indi araam nga ñu waxoon ci nga xam ne moom du mën a takkati yaay jigéen joojee mbaa maamu jigéenam ba tey it doomam mbaa ab sëtam du mën a ñëw di takk jigéen jooje bu ñu nee sëy bi yoon da koo war a tas ba ko yoon tas nag fekk wéet am na ba noppi dama wéet am na nee na can mënu caa ñàkk bu fekkee am na bu ñu waxante woon te amul ci yoon di bañ kon na joxe gañu waxante woon bu fekkee nag waxuñu woon genn mbaa gañu waxan daa am lu ci yoon di bañ kon ñu joxe canu kem bépp sëy boo xam ne yoon nee da koy tas bu ko tasee fekk ñoom ñaar jotuñoo wéet ku ne day dem rek dañu wax ne góor gi war ngaa jox jigéen ci dara ci can dagam moom yoon a ko tas tas ko rek te wét amagut góor ga muy jëkkër ja duñ ko ca laaj dara lu may nag dafa joxe woon can gu yées gën gaa néew can ci yoonu Malick xam nga yoonu Malick moom dañuy sàkk gën jaa néew can ne nangam mënu koo yées bu jëkkër ji joxee nag lu yées loola ñu ne ko mottali ko mu bañ ba yoon di ko tas ngir loola dañ koy wax ne ko faaw nga joxe genn wàllu can gi moom dañu ne faaw rek can nga nga xam ne moom la joxe woon mu manqué te nangu koo mottali dañ koy xaaj ca digg ba mu joxe genn wàll ga te genn wàll ga bi ci topp itam mooy bu fekkoon ne gannaaw bi fasee sëy seen diggante moom góor gi daa wax ne kii day may nañ ma ko waaye nampoon na ma ak moom ba araam na ma jigéen ji ko may ne ko namp nu woon daal di weddi li góor gi wax bu ko yoon dee tas day jàpp ne góor gi daa bëggoon a génn ci sëy te xam ne bu jekkee jekki fase yoon ne ko faaw nga joxe genn wàllu can gi kon ndegam nag tudd na ak nampaale ba ne araam na ko te jigéen ji moom weddi na ko dañ ko jàppe ne kuñ may soxna nga fase ko ci sa coobare te wéetu la ak moom war ko jox genn wàllu can fii it noonu lay def faaw day joxe genn wàllu can maanaam sëy bii ngay jàng nii muy ba ñu wóotee ñenn ñi ne wér na ñeen wérut ak ba ñëpp daje ci ne wérut baaxut bu fekkoon ne tas amut jëkkër ji ci boppam moo fase mu ne kon mook yoon tasoon ko ñooyemoo képp bu fekkee day sëy ba nga xam ne dañ caa wuute woon jëkkër ja daal di fase pase ma dal na ndax da nga woon bu ko yoon tasoon tam da ciy tuddaale pase kon nag bu jëkkër ja fase itam pase ma dal na sëy ba nga xam ne moom yoon dane woon ñëpp dogu na ne baaxut ni ki takk juróomeel boobu nga xam ne moom faaw dañ koy tas bu jëkkër ji jekk woon jekki fase itam ak tàggoo rek gu mënti ñàkk dañ koy jàppee ndax ndegam fase wutoon moom kon mënu si caa tudd fase sëy bi ñu war a tas moo xam bu ñu wuti la moo xam bu ñu wuti wut la bu kooko fasee jëkk ñu koy tas na nga seetaale ba xam ba muy fase fekk na mu wéet ak mu wala déet bu fekkee jot naa wéet ak moom idda mënu caa ñàkk bu doon yoon ko tas kon bis mu ko tasee la idda jay tàmbalee bu dee jëkkër jaa fase ci nii nag kon moom fasee la ñu tàmbalee idda ja te ndewal wéet gi am na itam kenn mënu caa ñàkk dañu waxante woon lay doon bu fekkee waxuñu woon genn ñu joxe canuk kenn ba tey sëy bii ñuy tas te góor gaaw daal di fase su fekkee ne ba muy fase fekkutoon mu jotee ak moom moo ko yoon tasoon ko te tekkul mu jotee ak moom ñëwee moo dara du ko ca war waaye nag nga seeteewaat la nga seetee woon illaa ni kaaxat juraxa may ni dañ ne woon ko yoon tasee te fekk lu tax mu tas ko mooy daa joxe woon can gu yiis duñ gane yi can ñu ne ko mot li ko mu bañ kon bu ko yoon tasee du te mu joxe genn wàllu can googee siit bu fasee njëkk wéet te fekk booba mu joxe woon can gu yiis can ko yoon santaane laata yoon di ko tas moom mu fase ba tey na joxe genn wàllu can googee bu yoon ne sëy bii day baaxut moo xam day bu ñu wuute ci ñàkk gaa baax wala muy dañ ñëpp tase ci ne baaxut ñoo ci yemoo su fekkee ne jëkkër ja jot naa wéetal jigéen ja ba am ci moom bànneexub fóon mbaa jonjoo ci yaram waaye aggul nag ci jote ci sawukaay bànneexub laalanteeg fóonante rek la yoon da koy tas noonee nag day wax ne jëkkër ji na jox jigéen ja nangam nangam loolee nag àttikat baa koy seet ndegam àttikat am na bu amut mbooloom jullit ñi tase seet ne daal na jëkkër ji jox jigéen ji nangam ndax yëgga wéet ak moom ba am ci moom bànneex te àggul ci joteeg sawukaay bu àggoon joteeg sawukaay moom mooy la nga waxoon ne faw rek kenn du ca mën a ñàkk benn kenn gën waxante woon wala bu fekkee waxuñu woon génn cenu kem nee nañu nag bu fekkee àttekat am na itam manees naa bañ a dem ci moom te mboolum jullit ne rek daje seet lu jaadu ñu ne na ko jëkkër ji jox kii ñu ko mayoon te ñu dindi sëy bi rawante na kon nag muy suñu jamono ji nga xam ne moom niwaana nga gis àttekatu yoonu lislaam ca barab ba nga nekk gone gu góor bu jekkee jekki takk soxna te amu ci ndigalul kilifaam kon kilifa ga mën naa daal di dindi sëy ba te bu fekkoon ne gone googee jote naa kañ ko may ba bu dee ndaw ndaw ga dañ na itam du tax kenn war ca ndax dañuy jàpp ne jote gone moom ñàkk jote ñooye moo ba tey kookee ñu ko mayoon muy jigéen ji itam du iddawu ibnu abdusalaam moom day wax ne ndegam xale boobu jote naa kookee ñu ko mayoon ba dindi ak ndawam war nañoo seet dindi ak ndaw lañ ci war a joxe ñu jox ko kookee ñu ko mayoon ndax kat sikkal na ko ndax dindi gam dindi ndawam googee dindi gam dindi sëy ba itam dañ koy jàppe fase nga xam ne kooku di gone bu demoon bay mag ñoo takkaat kooku ñu ko mayoon te dindi ko dañ jàpp ne fase woon na ko benn yoon léegi bu ko faseetee ñaari yoon rek bu daal di mën ñett jëkkër war a faa jaar jamono yi jaam amee yow mi amub daam bu jaam ba jekkee jekki takk soxna man ngaa dindi sëy ba dagam neexu la waaye kon dañ koy jàppe rek menn passé menn passé moo xam ne fay lu du ca mën a am waaye nag ki moom jaam bi ba muy dindi sëy ba bu nee daa koy dindi ci kaw dóor ko ñaari passé benn passé rek mooy war jaam ba ndax ne moom tàggale jaamoon bépp kim takkoon rek la benn passé bi doy na ndax passé la moo xam ne kenn du ko fayli kon bu ko bëggee dóora lópp benn passé yoon du ko nangoo bu nee nag sa jaam bu jekkee jekki takk soxna bu la neexee wéel bu la neexee bàyyi day fekk yow jutoo koo jaay waaye bu fekkee jaay nga ko ba noppi moomatoo ko fekk itam goreeloo ko waaye boo ko see goreel it ba tey moomatoo ko kon jaam bi bu takkee te amu ci ndigal sanga dool batiku jaay ko mbaa mu goreel ko mënta waxati dara ci takk gam takkoon ndax moom bi mu ko jaayee mbaa mu goreel ko rek amatu ca genn moomeel ka jënd itam te ba mu jënd wóor na ko ne jaam bi takk na soxna mi ngay soxna du ko saña tàggale soxna sa ndax xamoon na ko tutewul mu jënd ko bu fekkee daa xamutoon ne nag jaam bi takk na soxna ci ba mu koy jënd kon loolu sikk la soo xam ne su ko neexee xàcc bu sang bi dindee takk googu gi nga xam ne moom la jaam ba takkoon te fekk jaam bi jote woon naag soxna sa kon danañ ko jox moom soxna sa gën jaa néewi can muy kaaru diinaar ndegam jaam bi xas na wéet ak moom rek can mënu cee ñàkk waaye gën gaa néewi can lay doon in xarara ndéem war na mooy ndéem jaam bi ba muy takk jigéen ja da ko waxoon ne ko man gor laa du ma ab jaam gannaaw bi nag ab sangam yëg ne takk na mu daal di koy dindi mu ne kon bu jaam bi joxee lay gën gaa néewi can la def ci can nga dañ ko koy topp bu goree fay ko jigéen joojee maalam yubbatilhu sayiduhu aw xaakimun nag mooy sangu jaam boobu bu yëgee loolu mën na ne li ñu ko mer topp teggi naa ko bu fa nekkul moom sang bi it artikat ba mën na ne li ñu war a topp jaam bi bu goree war koo fay teggil naa ko ko ndax ndegam sangam nekku fi te bu fi nekkoon sañ ko koo teggil kon man teggil naa ko ko li tax nag sang ba sañ a teggil jaamam boobu loolee ñu ko nar a topp mooy bor la boo xam ne moom joxiwu ci woon ndigal mooy jaam bi wërta gàddu lenn te amu ci ndigal te moom digal ko woon takk gi bañu naa lañ ko war a toppee ci wàllu can ga muy bor moo ci joxe woon ndigal moom joxewu ci woon ndigal kon nag loolaay tax bu sañee jekki-jekki teggil ko jaam ba ne wàcce naa ko ko te bu fa nekkut it at attikat ba man ko koo defal loolu ci gàttal ñetti tomb la mooy jaam bi bu jekkee jekk takk te amu ci ndigal sang ba mën naa jekki-jekki ne dindi naa li mu takkoon nga xam ne kenn ñaanu ko naa ko dimbali ko waaye mbaa nangam mu jekki-jekki ne takk gi mu takkoon dindi naa ko ba tey mën na ne bàyyi naa ko ci tooñ na ma jekki-jekki takk waaye rek damay bàyyi sëy bi li ñuy wax ni nag mooy bu fekkee dafa njëkkoon a feeñal luy nuru ngànt mel ni bañ ko nee sa jaam bi day takk naa mu ne loolu day du ma ko ci bàyyi su fekkee du ma ko ci bàyyi joojee mu wax yaa jublu woon ne du ma ko dindi sax waaye damay bañ bu ëllëgee mu jekki-jekki def lu ni mel nga xam ne kon la mu ne woon du ma ko ci bàyyi da ko bëgg a yar rek ba bu ëllëgee du jekki-jekki defati ko nde moom jëpp ko woon a dindi ndegam jëpp ko woon a dindi waaye nag li mu wax daa nuru ak bañ kon li feek benn fan ba ñaar bu ko neexee ne wéyal naa takk gi mu takkoon moom sama jaam bi waaye nag bu ko seemat ñetti fan moom du mën a wéyalati te bu fekkoon ne moom ba mu yëgee ne jaamam boobu takk na feeñu lu nuru ak bañ kon lu yàgg-yàgg bu ko neexee wéyal ko waaye nag ndegam daa njëkk a feeñalu bañ ni moom in xaru ba ji ab sart la ci doon jiwu benn fan ba ñaar daal mën naa wéyal waaye lu weesu ñaari fan ki yett jëm ñeent moom wéyal ga day wees bu fekkee ba mu ne duma ko ci bàyyi la naroon mooy ci dëgg-dëgg du ko ci bàyyi da koy dindi kon faawu dindi ga rek lay man du ko mën a wéyal te itam amutoon sikki sàkk ci ba mu ne duma ko ci bàyyi lu mu naroon dëgg-dëgg bu fekkee dafa naroon ne daa koy yar rek di duma ko dindi dégg nga ko léegi waaye nag bu fekkee da doon sikki sàkk ca ba mu ne duma ko ci bàyyi lu mu naroon dëgg-dëgg ndax daa naroon dindi ga am daa naroon bañ gaa dindi muy sikki sàkk ci yooyu yaar kon ba tey dindi ga rek lay mën a def jamono yoon di dox ak loosóor nga xam ne bu waree alalam yàq ko dañ koy booleeg koo xam ne moo koy toppatool alal ja gis ko bàyyi alal ja yàqkatu alal boobu nag bu jekki woon jekki takk te kañ ko booleel jox ko ci ndigal ci takk ga mu ne kon mook jaam ba jekki woon jekki takk te amul ndigalul sang ba ñooyemoo kilifaam gii mën naa dindi sëy ba bu koy dindi itam dañuy jàpp ne rek benn fase la bu amul fay li la nga waxoon ca jaam ba te it bu fekkee ne jot naa wéet ak soxna sa ñu jox soxna sa gën gaa néewi can muy kaaru diinaar te it soxna su mën a wax ne su ma joxee gën gaa néewi can kat bis bu demee ba yore mbiri boppam damay fay la desoon ca can ga buñ ko joxee gën gaa néewi can ca la ñu yem du mën a topp la ca des loo sóoru boobee il lam yar sut jee mu wax nag mooy bu fekkoon ne kilifa ga dindiwul sëy ba far ñu dema dem ba kadaa yàq alal soppiku mën a saytu alalam bu baax a baax kon dindi ga wees na kilifaam googee du sañ a dindeeti sëy ba mu ne nag yàqkat alal boobu jekki-jekki takk te kilifa mayu ko ca ndigal su fekkee daa far faatu faaw yoon day dindi sëy ba ci lu war ndax bu ko yoon dindee jigéen ja di su ko ameel can tey du donn ndegam ci takkoon moom faatu na soxna amalatu ko njariñ kon yoon ci boppam day dindi sëy ba jaam boo xam ne tàmbali naa jotoo mooy juboo naa ko sangam ci jox ko nangam te gore bu ko neexee wutub taar maanaam wut jaam bu jigéen di joteeg moom ni ñu joteeg soxna ndax bu fàtte ne jaam mën naa am jaam ne moom ndax booba jaam alal la woon rek ba tey jaam bu góor boo xam ne ak sangam da ko jox ndigal lu jaayee ko jënd bu ko neexee ca alal ja mu jënd ca ab jaam bu jigéen def ko ab taara di joteeg moom ni nga xamoon ni joteeg soxna te comme ci doon ñoom ñaar jarul mu tey laaj ndigalul sang ba ab jaam bu góor bu ko ab sangam mayee ndigalul takk soxna mbaa mayu ko ci woon ndigal waaye daa takk ba noppi nag mu far ko ci bàyyi bañ koo dindi ana fu muy jëlee dundub soxna sa da ngay jëkk a xool lee mu ne illaa li xorfin bu fekkee ne ci aada ab jaam bu ma saayar soxna la muy liggéeyee ca la koy joxe ab dund kon dañuy topp aada la muy liggéeyee ca la génne dund bay jox soxnaam soosee ba can nga sax bu fekkee lay aada foofu rek mooy ab jaam bu takk ci ndigalul sangam mbaa sang bu wéyal ko alal ja muy liggéeyee mooy la muy yëngatu daal ca lay joxee can ak dund kon loolu laa yooyu ñu topp aada waaye nag bu fekkee loolu amu ci kon fee boobu seet fu mu jëlee ak can mbaa fu mu jëlee lu mu dundale soxnaam moo xam dañ koy may la mbaa dañ koy sarax la xaraaj mooy bu ko sang ma ne bis bu ne dee ma jox nangam gannaaw boo ma joxe loolu nag li ca topp yaa moom kon day la ko sang boo xam ne ko bis bu nekk moom nga may jox li sa jox ak googu li joxu ko loola du mën a féetale ci dund soxnaam soosee dara gannaaw bu joxee nag loolee mu ko laaj ca bis ba moom li ca toppaat rek mën na ko jëmale ca soxnaam kas bu nag mooy bu dee liggéey la muy am ci liggéey ba moom it noonu la bu fekkee sang bi dana ko dangay liggéey di ma jox kon loolee muy liggéey lam ci am da koy jox rek sang ba waaye du ci mën a génne dundub soxnaam di ca mën a joxe ca nag soxna sa kon luñ ko may mbaa luñ ko sarax mbaal demee noonu rek ca lay mën a génne dundub soxnaam waaye bu fàtt ni mu ko waxee illaa li xorfin bu fekkee lañ aadawoo moom mooy jaam bi ci la muy liggéeyee ci lay génne ab dund ak can kon ñu topp aada bu fekkee ne sang bi borom jaam bi daal maanaam mooy sang bi moo jékki-jékki ne jaam bi takkal ba jaam ba takk te tax ñu wax ko ne kon dangam yaa ko takkaloo nag yaa warlu can nga yaa warlu ab dundam mais gam ko may digalul takk rek taxul ñu ne ko yaay warlu can ba ab dund